ahlan bikum président jomaay fay fay dem ca réewum Guinée Bissau niki tey allah direct news yéen kaay moo ñu ko xamal dëkkandoo jàmm ca gën jëflante ba nag bu rataxee ci lay dàqati diggante ñaari réew yi nag fa yàgg a ratax ñaari président yi nag fa ñoo fas yéene waxtaane jëflante ci wàllu napp gaak yeneen yi ni mel la dépêche yéen kaay mais président jomaay fay kay ginnaaw bu mu demee réew Mauritanie Gambie ma nga Guinée Bissau maanaam réew yi nga xam ne ñooy suñu dëkkandoor wër Sénégal njëkk a dem rataxal diggante yi te loolu lu baax la laneen lu baax lu président Diomaye fay def mooy caxat-caxatee juñ doon def suuf si ci pegg géej gi ak tappale ci wàllu suuf séddoo suufu Sénégal ci xanam gu jaarut yoon tabax bu jaarut yoon lii yëpp nag fa jël dogal dakkal ko ba tax yéen a kaay tay yi parce que ñoom ñëpp fa ñoo xëy addu ci dogal bi ni mel bokk na ca Sud Quotidien ayaw ah, seetal suuf si ci pegg géej gi dakkal na moom président tabax ga yi doon amal ak a ñu ne déetawaay wàllu lotissement diwaanu Thiès Mbour ak Ndar léeg si ko yéen a kaay dëggal ko na liggéeyañ doon amal ca corniche ba jomaay fa ko bloqué boo fa gaa yi doon joxe intaha c'est fini dogal bi nag fa nar a jur ay conséquences de rawatina corniche ouest ak est géejawaay malika dagga xolpa Thiès mbuur ndar boa angaaru pèlerin ya foofu la dogal ba jëm enquête yéen a kaay na tabax ci littoral bi tamit Bassirou Diomaye fay président lépp la dakkal la quotidien yéen a kaay na dakkal boobu mu dakkal nag wàllu procédure domaniale bi ak wàllu foncier victime yi ti su ma leen te mooy yéen a kaay ne waaye dogal bii fa baax ndax yow suufu askan wi ay kilifa kilifa caxat-caxatee ko ñii di sàcc ñii di jaay xanam gu jikkut yoon ñi leen di tappale suuf deseetu ndakaaru pegg géej-géej lépp moo tax fa leen wax xalaa ma ndir bàjjoon xalaa xalaa du ngeen fi tabaxati bés bi yéen a na ko yemut ne dakkal ak ndéggandiku gii président Diomaye Faye def fa koo def ci bomb boo xam ne ci wàllu suuf boo xam ci réew mi laas yéen a kaay na état bu Sénégal fa dakkal caxat-caxatee tappale xanam gu jaar yoon gañu lotissé mbuur kat foofu moom tooxi doonoo fa xam point acti yéen a kaay na liggéey yu ñu doon amal ci littoral bi ci département nga jambal jaañ ci turbine yéene kaay ne dogal bi mënoon nañ koo gën a yaatal su ko defee mboolem koo xam ne ab délinquant nga tappalekat ci wàllu suuf ñu laa teg loxo réew mi yéene kaay la leen faa leen di wax leen son yi nga xam ne moo gën a foofu la président Diomaye Faye tàmbalee lijjanti loolu muy Ndakaaru Ndar Géejawaay Lac Mbuur Thiès ak yeneen yi ni mel info yéen a kaay na état bi kay li def nii lu baax la bomb bi naroon a kalaate ci wàllu suuf fa yàq bomb ba ndax ndakaaru njaay moom Thiès ak ndar tappale ak coowal suuf fa faa jéggi dayo yoor yoor yéen a kaay ne faa lañ ci yokkal kër Moussa foofu tooxi doona ci wàllu suuf moo fa am libération moom ci wàllu contrat armement ci la xëy addu l'observateur moom fa xëy addu ci haute trahison bi ñu wax ne moom la président Macky Sall def ba ñu war koo topp ci ko bu laajee sax ñu tëj ko koo xam ne nag xam-xamam fa màcc ci wàllu yoon moo la Macky def la ñu def nag ñoom waa Pastef yi fa ñoo xamal ndaje secret ca seen biir fañ doon waxtaanee fal gi ñuy fal poste responsabilité wàllu xaalis kopparu seen parti ba ngir mën a tabax daluwaayu Pastef fexe tamit ba assemblée nationale ñu ëppale fa ay député source a ne Ousmane Sonko sax ca ndaje ma fa faa proposé ne Jomaay Fay fañ ko war a def président d'honneur bu Pastef Direct News moom it fa àddu ci BRT bi nga xam ne moom lañ tànn mu nekk projet bi gën ci atum 2024 yi ca ñeenteelu édition Africa Awards ba leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja moo ne ñaar fukki bus ak ñaar yu Dakar dem dikk fañ leen a tojate ci njeextalu ay bés bi Sud Quotidien na ko faala ci yokkal liggéeykatu Dakar dem dikk ya fañ doon xamal geraw banque seeni tànk ne duñ dawal ba tax xoto ya presque dawuñ fa am gàllankoor jëwriñ ji ñu dénk wàllu wi nag El Malick Ndiaye ba mu déggee yëf yi fa dem waxtaan ñoom te fa leen a dig tamit ne seeni jafe-jafe fañ koy saafara ba tax ñu génn ca geraw ba man ma génn foofu ngir leen ne subaa jàmm mooy feetu premier mai di bés bi ñu yi léegi a dundee ak nguur gu bees a kaay fa koo daan fa war a fay juróom-ñaar téeméeri million muy coow li doxoon diggante mook bi maawoo tribunal commerce bu ndakaaru moo joxe dogalu xatte bi le réveil yéen kaay moom fa ñoo xamal ne fa xam ay policiers yoo xam ne seeni salaire fañ koo daggoon lu ëpp ñetti weer Guy Marius Sagna nag nee na lu ji njaaga DG bu police mooy njaag ak Antoine Diome bi fi nekkoon jëwriñ yaaw seetal policiers yooyu fañ leen a santoon na leen fa ngeen ni dóor opposition bi doon ñaxtu ci atum 2023 bi képp ku génn rek askanu dóor leen dóor yu métti policiers yooyu nag bañ bi ñu bañee ne duñ kilifa yooyu ci leen daggee seen i salaire ba tax Guy Marius Sagna di sàkku ci état bi président Diomaye injustice boobu noonu ñu joyanti ko ndax policiers yooyu fañ leen a tooñoon vox populi moom fa ñoo xamal ne fa xam ab bus tata boo xam ne fa daanu ba jaaxan pënu ya nekk ca kaw ci ndakaaru booy jàdd jël tali kastoor bi benn doomu aadama faatu na ca ñaar fukk ak ñett xam ci ay gaañu-gaañu fukk ca ñoom nag seen gaañu-gaañu fa métti lool ba ña nga ca diggante dund ak dee la fa xam gaal ne Sénégal gii la bàyyi ko woon ay ndaw dugg ci na fa ñuy dem Espagne Barça mbaa Barça faa yaakaar na ñu bëri sa ñoom dem nañ Barça de waaye demuñ Barça ndax ba gaal ga suuxee ci juróom benn fukki nit ya fa nekkoon juróom-ñeent rek ñoom lañ génnee ñu ànd ak bakkan ña des ñëpp gisuñu leen ña nga ca géej ga xam nga ne loolu baaxut laneen lu baaxut lu ñu seetlu ji Sénégal muy coupure courant rawatina ca Touba ba tax public yéen kaay na bu mag a mag mag bi Real Madrid jongante bu nar a métti Bayern fay bëgg a fayu waaye ñoom dafuñ xam nañ Real fa xaay ci Bayern de bés bi yéene kaay moom fañoo ñoo xamal mbir mu yéeme bu amee ca sànjara yaaw seetal fa xam benn borom oto otom ba fa doon tàkk ay ndaw ñëw di ko dimbale ngir fay oto ba rek benn waay bu ñuy wax pas allemand tiit rek jóg ci guddi gi gis ndaw ña sëm oto ba rek mu foog na ay sàcc lañ rek mu rocc fetal tiire ngir tasaare leen ba muy tiire nag fa jamaale xale bu góor boo xam ne lii sa lay jànge moroomu élève amee nag yëf leen métti leen fa ñoo dem ci kër koy taal paa boobu nag ab militaire bu à la traite la woon ñu doon ko xooyee paa allemand